ولتدخل المصلح في يدي وفي daarii wa sabbitanhu bil haadi wafi mbokk yi seetaan seen télévision GMT TV di télé bu mag bi nekk ci grande mosquée de Touba ñu ngi leen di nuyu di leen wax asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. dellusiwaat nañu ak yéen ci seen jataay yi nga xam ne moom la ñuy wettilantee ak yéen ci tele bi. suñu jotaayu tey bii nag bokk ci émission bi ñuy wax yow la kan yow la kan di émission boo xam ne télévision bu GMT TV moo leen koy amalal euh, weer wu jot ngir di ci waxtaane ak di ci fàttaliku jaar-jaar yi mag ñi nga xam ne ñoo nekkoon ci jumaa ji depuis ñu ko ubbee 1963 ba jamonoy tey ji tey nag ñu war a waxtaanee ku am solo koo xam ne taarixu jumaa ji du ko fàtte ñu koy wax Serigne Guédé Mbacké Serigne Guédé Mbacké ñu bari miin nañ turam ci jumaay tuuba waaye ñu ngi ko gën a miine nag ci weeru koor Serigne Guédé Mbacké moomu mi ngi ganee àddina atum 1930 ci dëkk bu ñuy wax Misra ñu gën koo xam ci Mesere foofu la gënee àddina muy nag doomi soxna ju mag joo xam ne suñu ko waxee ñëpp xam ne euh, ak nekkam ci jumaa ji lu war la lu jaadu la ndax sëriñ Cheikh Astawalo mooy wayjuram sëriñ Cheikh Astawalo moom sëriñ Mamor Jaara Mbakke borom Saam moom Serigne moor Anta Sali moom maam Balla Aysa moom maam Maaram kooku mooy way juróom bu góor waaye itam soxna ay Aysatu Buso moom Serigne Mbàkke Buso moom sëriñ Buso be mooy way juróom bu jigéen kon mel na ne tuur wi wuyu na boroom diggante Mbàkke ak Gédé ñu ko séq kon bu tuddee Serigne Gédé Mbàkke tuur yi wuyu na boroom Serigne Gédé moomu moom la Cheikh Abdoul Ahad Mbàkke dénkoon muy taxawee salaatu taraweex ñu koy wax naafile yi fii ci jumaay Touba ci atum 1984 ginnaaw bi fi Serigne Makhtar ma si jóge mu di ko taxawee nag ci njàngoom alxuraan mu sell ci naafile dëkk bépp Touba gépp di mab di ñëw ci jumaa ji di ànd ak moom ci naafile googu salaatu taraweex diiru weeru koor wi mu di ko wéyal ba ba ni mu fi jógee ci atum 2009 nga xam ne taxawee na ko diirub ñaar fukki at ak juróom muy taxawee naafila yooyu waaye bi mu fu jógee bàyyi fi nag kenn ci njabootam koo xam ne itam ràññee nañ ko lool ci njàngum alxuraan mu sell ak tarin wu sell ak jikko yu sell muy sëriñ Fallou Mbacké moom sëriñ Guédé mi nga xam ne 2009 ba léegi bi fi waay juróom boobu jógee moo ko wuutu fii ci jumaay Touba di taxawee naafila yooyu njàngum alxuraan mu sel dëkk bépp wala àddina bi yëpp sax di ko teelu di ko bàyyi xel sëriñ Fallou Mbacke moomu nag di doomi sëriñ Guédé moom lañ fas yéene séqal jataay ci fàttaliku nag sëriñ Guédé woy juróom waaye itam di waxtaan itam taxawaay gi nga xam ne moom lay taxawee naafile yi fii ci jumaay Touba ndax ku nekk xam na ne ñu ngi dëgmal weeru koor te it jotaay boobu kon jotaay bu am solo la boo xam ne dañ ko mën a wéttalantee ci weeru koor gi kon incha allahu taala dañuy dem rek ci jotaay bi séq ak Serigne Fallou waxtaan waxtaan ak moom ci naafila yooyu nan la ci jotee ci waajuram nan la ko ci waajuram euh, tàqantale euh, tàggat ko ci ba moom itam taxawaay bi mu ci am ci wàllu njànginu alxuraan bi njàngin wu neex woowu nga xam ne ñëpp ñu ngi koy bàyyi xel kon du ñu def lu dul nag Euh, dugg ci biir waxtaan wi ànd ak Serigne Fallou Mbacké moom Serigne Guédé ñu ci seen émission bi nga xamante ni mooy yow la ka shaytaani rajim bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmani rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina as-sirata al-mustaqim bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabil alamin allahuma salli ala sayidina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa xadimihi wa sallim taslima asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu mbokk yi yëpp ñu ngi leen di nuyu te di leen ziar di ñaanal Cheikh Mouhamadul Muntaqa lii ak bëggam yàlla defal ko ko nu mu ko bëggee lii taalib yi bëgg ci moom tam yàlla defal leen ko te mu bokk ca mu yàgg fi te amu wér di jaajëfal waa daairatu muqaddamatul xidma ci liggéey yu am solo yi nga xam ne ñu ngi koy def ci jumaa ji di ñaan suñu borom dolli ci tawfiq ak ndimbal Euh, lu ngeen ci yéene ngeen àgg ca def ko nañ ko bëgge te lépp dajeek ngeen ngeen am ci ngërëmul sëriñ bi euh, ci laaj bi nga laaj nag ci sëriñ Guédé euh, liggéey bi bi mu doon def fii mën naa jàpp ne ci atum 1982 jàpp 83 ci la ko tàmbuli ci ndigalul Cheikh Abdoul Ahad loo xam ne waxtaan nañu Cheikh Abdoul Qadir lu ko jiitu Daaru Salaam la nekkoon nekkoon imam daan fa jiite naafile léegi ba ndigal lii dab ko mu ñëw fii sëriñ Gédé nag ngir ñu wax ci moom ay kàddu yu néew maanaam ci mooy kan ak mu jaar wax ne rek <clears throat> mi ngi ñëw jamono ci 1930 fee ci Misra ci diggante ñaari waajuram mu sëriñ Cheikh Assawalo moom Mamor Jaara borom Saam ak soxna Astu Buso moom sëriñ Mbàkke Buso loolu yaakaar naa doy na sëkk ci ab xamle eh, sëñ Mbàkke Buso maamam moo ko dalal alquran jàngal ko ab diir jox ko ku ñuy wax sëriñ Abdul Qadir Samb diir bu gàtt la fa def mu jox ko sëriñ Muudu Buso mii waajuru sëriñ Maamun mi imaam yi ajjuma ji ci jumaa ji moo ko jàngal alquran ba mokkal ba beqi yo benn yoon ba ci yoonu ñaareel bi bi nga xamee yàlla dogal na mm, ak tële dab ko nag ci la dem Daaru Salaam euh, doon fa àggale ji njàng ma ku ñuy wax Sëriñ Asan Jaane mu àggale fa beq ma bind kaamin jàng xam-xam foofu ci caaween ci ku ñuy wax Sëriñ Suleymaan Saaw euh, ba mu fa nappee mu dem njaareem jàng fa xam-xam am sax wax na ne boobee mook a Cheikh Mouhamadou Mountakha nii ak Sëriñ Mamour Pakala ñoo bokkoon benn nekkuwaay bu ñu nekkoon ba ñuy jàng xam-xam mu fa jàngee ba jàpp ne dafa war a dem gànnaar ngir àggale ci njàng mi ci la ko cheikh Mouhamadul Mamoun woo euh, jox ko ndigalul nag demal liggéey xamal ko ne ko nag kuy liggéey te bëgg gaaw am dam da ngay seet da nga gën man nga yëngu jëm ca te yow jàng alxuraan ak jàngale ko moom nga gën a man kon dang koy def muy sab liggéey ci Serigne Touba xamal ko ne boo ko defee te sellal ko la ca Serigne Touba daan defal ñam ko daan sant ñu di ko sellal mm. dana la ko ci defal mu daal di tàmbuli eh, nekk foofa yor fa daara ja al jàngale alquran loolu mi ngi war a toll 1945 boobu fekk na Serigne bi mi ngi toll ci ay fukki at juróom ala nekk nag di jàngal alquran di liggéey ci diina rek mm. ba nañ ko joxe ndigalul muy naafi foofa mu nekk fa ab diir ba ndigal dabaat ko lu bàyyi ko Cheikh Abdoul Ahad Cheikh Abdoul Khadir mu ñëw fii ci 1982 jàpp 83 noonu daal la ci nekkee nekk ci 1983 jooju ba 2008 2008 ci la euh, géej maanaam kooru 2008 moo ko fi mujj fekk mi ngi wàcc nag ab liggéey ci 2009 euh, bi ñuy jubaat koor gi ci war euh, weeru baraxlu ci atum 2009 loolu daal ci tënk mooy eh, jaar jaar bi nga xam ne sëriñ Gédé jaar na ci. xam nga ni ma ko ni ñu ko xamee mag ñaare waxtu nekk day aajowoo ku ne ci wetam ngir di ko. doxal di ko lijjantil ay ay yitteem yàlla dafa dogal bi mu demee ba gën a jëm mag ma nekkoon ak moom bi mu demee ba yëg ni nag war naa am kuy ne ci wetam ngir bu amee ngànt ci liggéey bi mu koo xam na a doxal eh, mu amoon ñoo xam ne doon na leen eh, ko def loo man mi bokk naa ca sëriñ Mbacke Fadiama mi ab taawam bokk na ca sëriñ Saam ba tey doomam la bokk na ca na ko jox sëriñ Alaaji Mbàkke nekk fii ci gaar bu mag man bokk na ca ñoom kenn ku ci nekk daan daan def léeg-léeg mu jox la nga euh, barkeelu ci liggéey bi euh, man nag comme dama taqoon ak moom ne fi saasu ne moo taxoon lim ma daan jox may barkeelu moo gënoon a bari euh, te maa ngi jàpp ne at mi ma njëkk a jox may barkeelu du sori 1980 93 wala 14 93 wala 94 euh, ci la ma njëkk a jox ma barkeelu ci liggéey bi وشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء noonu lu muy gën dem mag yi gën di dugg si euh, ni mu ko doon defee di gën di wàññi ko mm-hmm. ba nga xam ne euh, at yu mujj yi dañuy def bu bu kambil bi àggee eh, bu bu tàmbuliwaatee rek li ci des ci koor gi lépp day bàyyi ma àggale ko hmm. ñu dem ba léeg-léeg day sax day tàmbuli bu demee ba am ay ñaar fukki suba yooyu masalan bàyyi ma àggale ko ba ci koor gi mujj fekke nga xam ne moom dafa ñëw rek ci kumtali hmm. bi mu umee naafi la naafi bu njëkk gi daanaka jotul sax ñëwaat ci jumaa ji day toog ci kër gi rek ñuy dem di ñëw hmm. waaw mooy tolloog koor gi atum 2008 laata koor gi dellu siwaat ci la yàlla dogal mu wuy ji borom waaw loolu ci jamono Serigne Saliou la ndax bi mu demee ba yëg ne euh, kuy taxaw ci wetam ci liggéey bi baax na ci Serigne Saliou da koo joxoon liggéey bi moom ci sa loxo la ne ay saa boo demee ba yëg ne war nga am ku ci aw yaay seet ku la ci doy rek nga jox ko mu aw la loola sax eh, bi mu seetee ñëpp ba am diir am na bis ak suba teel ñu ànd ñëw ba ci sëriñ Saliou mu ne ko liñ ma waxoon ca naa seet ku ma ci liggéey bi mu ma ko mënul mu di ko def day suñ Fallu mii mën na ko sëriñ Saliou daal di may laaj sam njàng fu mu toll yooyu ma wax koo mu ne ma ànd suñ ma ànd mu jël loxoom teg ci sama bopp ñaanal ma daal ne baax na ah, loolu moom ci jamono Serigne Saliou la woon kon yàlla dogalee nag Serigne Saliou njëkk fii jóge ginnaaw bi bàyyi Serigne Gueye joge fi bi a Cheikh Mouhamadul Amin ñëwee mu mel ne la Serigne Saliou ne woon baax na loola rek la daal di wéyal ñu ngi ko tàmbali kon ci jamono yi Cheikh Mouhamadul Amin noonu ma ko waxee ci kooru atum 2009 ci lañ jot ndigal bàyyi ko ci xalif général des nekk ci liggéey bi boobaak léegi itam ñu fi wutu sëriñ bi ñëpp ku ñëw rek daal di yeesal ndigal loola ba ci Cheikh Mouhamadou Mountakha ñu koy ñaan suñu borom yàggal ko fi te ko waaw mu def sëriñub daara la yëngu ci daara yi di jàngale alxuraan <laughs> waa nekk fee ci misara yor daara am daara daaru eh, di yëngu ci jàngale bi rek waaw fatalaqa aadamu min rabbihi kalimatin fataaba alayhi innahu huwa tawaabu rahim eh, xam naa nag fu mu man mi sax xawma ko man na mën naa ne daal yëg naa ne am na genn koor daal goo xam ne Euh, naafile nañ ba ci biir naafile gi hmm. mu mel na ci la air bi tàmbali ñu hmm. ñu mel nag day dem di gën di soppiku di gën di soppiku ba agsi fi mu agsi waaye fenn fu naan dama ko dama ko royee ci diw wala mel noonu wala dañ koo waajal wala dañ ko keree déedéet moom daal euh, dañuy taxaw di jàng rek mel ni daa jekk-jekki ñëw rek noonu hmm. waaw di dem nag di dem nag ba agsi fi mu agsi nii waaye du fuñ jëlee ci kenn moom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 amiin xanaa sant yàlla rek ci euh, tawfiq ji mu defal mm. di liggéeyal Serigne Touba mm. waaw nga xam ne moom man dama jàpp ne liggéey Serigne tubaa rek moo moom la laa war a def sama diir dund mm. yàlla defal nu tawfiq nag ñu am ndigal ci liggéeyal ko waaw tawfiq ji gën a dolli ko te ci di ko liggéeyal ci alquran ak ci barabam bi moom dañ ci sant yàlla bu baax a baax a baax di di ñaan rek ni ma ko waxoon ci njëlbeen bi yàlla dolli ne ci ndimbal ak tawfiq ba fu ngeen ci am yéene ci liggéey ko fi mu jàppandi ni ngeen ko bëggee lépp nag ngeen daje ceeg ngërëmu sëriñ bi axiru daawaana an alhamdulilahi rabbil alamin wasalaamu aleykum wa rahmatullah kon mbokk yi yéen a dégg jataay bu am solo ak wax ju am solo ji nga xamante ni bàyyi ko na ci Serigne Fallou Mbacké moom Serigne Guédé moom ci taxawaayam ci naafile yi ñuy def fii ci jumaay Touba ci weeru koor wi gis ngeen ko leeral na ay jaar jaaram leer na ci ay jaar jaaram mu jànge alxuraan ak ni ko woy juram tàggate waaye leeral na itam taxawaayu naafile yi ni mu koy defee ci xeeti njàngin yi ak ni mu ci tàggatoo ak air yi nga xamante ni ñu baree bari seetlu nañ ko ci njàng mi muy njàng moo xamante ni mu am xusuu ak xodoo ngir xeetu njàngin woowu ba tax na ndaw ñu baree bari tey di ko roy ci dëkk bi ñu baree baree bari bëgg a doon ay sëñ Fàllu Mbakke euh, ngir njàngin wu neex woowu nga xam ne moom lay jàng ba tax na mbooloo mu bari di ñëw ci jumaa ji di naafile si ngir sàkku tiyaabo yi naafile weeru weeru koor waaye itam digluwaale njàngum alxuraan moomu itam bokk na ci leer na itam ci ay jaar-jaaram ci njàngum xam-xamam ci njàngum alxuraanam ci taxawaay bi nga xam ne moom la am ci eh, naafila yooyu ak ni mu koy waajale bis bu set ndax xam ngeen ne bis bu ne ñaari isib ak nisif la ñuy def lañuy la ñuy kii nga xam ne kaamil bi dina jeex ci biir weeru koor wi ba tàmbaliwaat te weeru koor wi di jeex loolu yëpp Serigne falu dikk na ci ak taxawaay bi nga xamante ni moom la ci am muy ndaw loo xam ne nag lu mat a roy la lu mat a bàyyi xel la di ñaan suñu borom subhaanahu wa taala mu fayal ñu ko ci barkeb Cheikhul Khadim te baral baril ay kem yu mel ni moom ngir taxawaayam ci eh, alxuraan yi taxawaayam ci diine ji kon mbokk yi eh, yi ñu doon topp ci GMT TV lii lañ leen indiloon tey ci seen émission bi ñuy wax yow la kan yaakaar naa ne tey eh, ki ñu découvrir ki nga xamante ni moom lañ gëstu ba indi ko jàpp naa ne ñu baree bari bari ci téléspectateurs yi dana doon lu leen di bégloo loo xam ne dana leen fàttali loolu lu baree baree bari kon du ñu def lu dul bàyyi leen ak benn extrait bu ndaw tëje ko waxtaan wi ci naafila ak Serigne Fallou Mbacké moomu moom Serigne Guédé di leen dig daje ci beneen émission ci weer wii di ñëw incha allah. wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu fa imma yatiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala xawfun alayhim wala hum yahzanun wal tudxilil musliha fi yadi wa fi daari wa thabbitanhu bil haadi al wafi